mu ne wa saabiquuna jiitu jiituña al awaluuna ya di way njëkk minal muhaajirina ci waa ci gàñi gàddaaykat yi te mooy julliti quraysh yi nga xam ne ñoo jóge woon màkka dem Medina wal ansaara ak wal ansaar wal ansaari ak lansaar ñooñu nga xam ne mooy ñu jiitu eh, ñoom lañ tuddee na ñoom ñoo jiitu ñoom ñoo njëkk de walladina nag ña nga xam ne tabaahum topp nañu leen topp nañ seen ginnaaw bi ixsaanin ci rafetal loolu yëpp lan mooy seen ak yool ak lan mooy seen ak fay buur mu ne radiyallahu eh, radiya gërëm na mu allahu yàlla anhum ci ñoom ci topp gi topp yàlla topp yàlla ak yonentam mu ne waradu gërëm nañ ci seen boroom ci yool gim leen yool de wa ahadda xadul na mu leen mooy préparal na mu leen lahum ñeen leen jënnaatu nay tool te jëre dana mu daw taxtaxaa ca ronam ca suufam an xaaru sew xaalidiina mbir mi aji béel sax fiiha ca aljana jooju abadan dappet ñoom daal la aljana jooju dañ cey sax rek daalika lool la seen loolu la ñuy wax alfawzun moo de ak texe alxasiman gu màgg de dañ ne saabiquuna la waluuna ñi nga xam ne ñoo jiitu ci ñu njëkk ñi ci julleen ñi nga xam ne jiitu nañ ci gëm yàlla wala jiitu nañ jiitu gu mag jiitu gu mat am na ñu ne mooy ñu njëkk a jébbalu rek ñii nañ ne xadijatu bintu xuwalit moo njëkk a jébbalu ndax moom moo doon fuuglu waxyu bi ba yonent bi nekkee ci xaaru xiraa ba ba ko jibril feeñoo na ko iqra jàngal mu ne ko mënumaa jàng bam bam bi mu dellusee ci këram ne ngeen ko xamee ba yaa ayyuhal muzammilu wàcc eh, ak yaa ayyuhal mudassiru wàcc fuglu googu nga xam ne xadijatu bintu xuwaylid moo ko doon fuglu ak jàppale googu ñu ne moom moo njëkk a gëm ci jullit yi d'accord am na ñu ne Aboubacar Siddiq moom moo njëkk a gëm ci jullit li ndax moom it bi mu dajeeg meer boobu nga xam ne war na ko marque bi nekk ci biiram bi ci wàllam gi ci la ci la ci la ba mu dellu see rek ci la commencé nag miin yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba nu muy tuubee loolu itam bokk na ci am na ñu ne itam Zayd jaam ak Xadijatu bi nga xam ne euh, moom moo moo nekkoon jaamam moomeelam ba ba eh, xadijatu daal jël zeydi moom may ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne jege gi mu jege woon yonent bi ñu ne moo njëkk a jébbalu am na ñu ne Seydina Ali moom moo njëkk a jébbalu ndax moom jaarul sax ci sujootal xëram li gën a wér daal mooy Aboubacar moo njëkk a ji moo njëkk a nekk jullit ci mag ñi jigéen nii Xadijatu moo njëkk a nekk jullit eh, eh, ci moomeel yi Zeydi moo nekk njëkk a nekk jullit ci xale yi Seydina lii moom moo njëkk a nekk jullit de lii daal mooy àtte bi maandu bu ko defee nag réeroo du am de après nag ginnaaw gi nag juróom benn ya ca topp nga xam ne euh, ak ñoom euh, Omar ibn Khattab laa bëggoo Omar ibn Khattab mi nga xam ne moom mooy nekk ñeen fekk ñeen fukkeeli nit ci ñuy ci ñuy mottaliku te mooy ba te mooy xistaam waxoon nañ ko keroog nga xam ne intention mooy jëlee fi yonent bi euh, sallallahu alayhi wa sallam far yàlla def ci xolom leer ci ndimbal ak ñaan ak yonent bi allahuma aid islaama aiz islaama bi ahadi omarayni nga yàlla yàlla eh, màggal islam dëggal islam ci kenn ci ñaari omar yi te mooy abu ak omar ibnu xataab far ñaan ga nag daal di dal ci omar ibnu xataab omar ibnu xataab moo nekk quarantième personne ci jullit ñi terawut ngeen nag yàlla moo nekk itam ñaareelu xalifa ci xalifa ak yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ne ñooy saabiquuna awwaluuna am na ñu ne saabiquuna awaluuna mooy fukk yi nga xam ne ñoom la yonentu garanti aljana na ko xamee yonentu dafa toog bés mu ne Abubakar Siddiq aljanna la jëm Umar ibnu Xataab aljanna la jëm Usmaan ibnu Affaan Ali ibnu Abi Taalib eh, Talxat ibnu Ubaydillaahi Talxat Sayaab Saadu Abdura Saïd Abdurahmaan ak Abu Ubaydat ibnu Jarrah fukki ñii la yonentu bi garanti woon aljanna ñi ne ñooñ mooy saabiquuna awaluuna am na ñu ne képp ku teewee badar rek bokk nga ci saabiquuna awaluuna am na ak ak ku teewee uxud itam bokk nga ci saabiquuna awaluuna ak képp ku teewee itam bayatu ridwaan bokk nga ci saabiquuna awaluuna kon nag saabiquuna awaluuna daal mooy ñu jiitu ñi rek ñi jiitu ñi daal mooy képp ku dund ak yonent bi nangul ko tuub nekk jullit nekk ci saxaabaam ci saabiquuna awaluuna nga bokk ku fekkee ne nag bu fekkee woo yonentu nag moom ci ginnaawam salafu saaleh nga topp yoonu saxaaba yi yow tamit bokk nga ci saabiquuna awwaluuna yi ndax euh, wa man tabiahum bi ihsaanin ilaa yawmi diini loolu rek la maanaam topp boo toppee ñi way rafetal ni rek bu boobaa itam bokk nga ca ba de yonentu ne na sallallahu alayhi wasalam mu ne way jiitu ci ñun way jiitu lañ ñi nekk ci diggante bi mucc nañ ñi nga xam ne nag ñoom ay tooñkat lañ ñu njéggal lañ bu ko defee nag nga xam ne mbir mi daal hitte rek la hitte ju kawe loo mën a loo mën a boo yéexee ñëw itam mën ngaa góor góor ba bokk ci place bu njëkk bi xoolal Omar ibn Khattab moo nekk ñeent fukkeeli personne bu mujjee ci ci ci ci jullit ñi. 40 boo doon lim départ ba moom moo nekk quarantième personne waaye bu doon lim Aboubacar mukk lim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci Aboubacar doo ci teg kenn ku doon Omar ibn Khattab de. kon nag daal jiitu daal yaa koy xëccoo rek itte ju kawe rek moo koy maye yitte nag moom lu dul nubuwatu nga xam ne jeex na ca ca yàlla ba lu dul loolu rek itte mën naa maye loolu xutbaani yo toog xam-xam ak wërsëg ak nangam sàng demet ba mu jeex yëpp yitte ju kawe moom moo koy maye de mu ne wa min man xawlakum aji nekk la ci seen la leen wër yéen waa Medina minal aarabin ci kaw kaw yaaram yi munaafiquuna ay naafeq niki ashja ak aslam ak gafaar ñett ñooñu ñooñu ay naafeq lañu woon wa min wa min ahlil madina ak ñooñ waa madina am bokk na ci ñooñ waa madina itam ci ay naafeq maradu féttarlu nañ ala nifaaq ci naafeq jéngi jéggi dañ doye lool toll nañ seen lim ñetti téeméer ci naafeq yi ak téeméer ak juróom-ñaar fukk ci naafeq yu jigéen yi jamono bi yonent bi dund sallallahu alayhi wa sallam naafeq yi ñu ngi leen doon compter ci trois cent ci suñu góor yi bu fekkee ne naafeq yi jigéen ñi la ñu ngi leen di toon compter ci cent soixante dix personnes ci jigéen ñi kon nag bu fekkee ne jamono jii na moom bul xam ñaata milliards lañ wala wala ñaata million lañ bul xam ñaata lañ de moo tax mu ne laa taalamuhum xamoo leen xamu leen ñu ñooñu naafeq yi xamoo leen de ma ngay wax ak bi nag ko ñu xamoo leen nax nu ñun yàlla nax la moom waaye xam nañu leen de ñun ñoo leen xam de sa boo azibuhum dañ leen mbugal mara tey ni ñaari yoon ci gàttal ci gàcceel leen fii ci àddina mbugal ak àddina nag mooy teg la gàcce weer la sa diggi nawle yi yàlla incha musal ba pare itam ñu ray la ci xare nga dee ñu wëlbatiku yóbbu la suuli la nga dajak fa mbugalu bàmmeel wëlbatiku itam mbugalu safara fekk ko fa de yàlla musal mu ne loolu mooy sunu azibuhum maratayni da koy gàcc danañ leen gàcceel fii ci àddina toroxal leen weer leen ñu dem xare ñu rey leen ñu wëlbati ko demaat ca bàmmeel ba ñu dugal def leen mbugalu bàmmeel buñ bu bu bu yàlla attee jaam itam mu yóbbu leen safara de yaanuñ ci yàlla musal su ma yuradduuna topp delloof leen illaa azabin jëm ci mbugal mun bu màgg te mooy mbugalam safara de loolu daal eh, mooy kii ak naafeq yonentu toog na bés sallallahu alayhi wa sallam ci jàkka ji mu yëg ci kaw minbar ba taxaw ne diw naa fekk nga génnal jumaa ji diw naa fekk nga génnal jumaa ji diw naa fekk nga génnal jumaa ji ñu bëri ñu daldi di commencé génn nag mooy lim yi ñu wax ñetti téeméer ah wala ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk boo ko defee ñetti téeméer yi di góor téeméer ak juróom-ñaar fukk yi cent soixante-dix yi di nekk gi ay jigéen loolu la de mu ne wa na am na ñeneen itam ci ay nit itarafu jaxasoo nañ bi zunubihim seen bàkkaar yi ci uute maanaam ñoo xam ne saxal nañ laa bëgg a wax bi zunubihim seen bàkkaar yi xalatu jaxase nañ amalan saalihan jëf ju baax te mooy dem jihaad yi njëkk loola waa aqaru am na aqara am na ñeneen itam yaan nii de way ñaawal de ci bañ a dem am na ci ñoo xam ne dem nañ gaa bañ demee départ bi seen xol neexut waaye dem nañ ba ca biir rek seen xol bi wëlbatikuwaat ñi mën a defaat lu baax am na ñoo xam ne nag ñoom ba ñuy dem ca tan Tanbuk ba léegi xasatu tan rek lay expliqué am na ñoo xam ne demuñ waaye dañoo bañ rek buur mu ne asallaahu amaan na yàlla am yettuba ba mu baleeb ci ñoom amaan na yàlla baal leen inna allaha naka yàlla xafurun aji jéggal la mu ñaaraay xejjam rahimun aji yërëm la mu leen de ñi nga xam ne dañoo wuute woon tan Tanbuk ñetti xaaj lañ am na ci xaaj boo xam ne naafeq lañ ñoom yàlla teg na leen gàcce ci aaya ju jiitu ji am na ñoo xam am na ci beneen xaaj boo xam ne itam dañoo ñëw xeew seen bopp ci dàtt tàndarba yi ci biir jumaa yonent bi ñu gëñ ne mu ne bu leen kenn jege yonent rek moo xeey ci ñoom yonent rek la ñuy xaar ba yonent bi ñëwee ne gis leen sallallahu alayhi wa sallam am na ko ca bokkoon ku doon wax abu lubaaba mu ne yonent ne leen ñii ñan la saaba yi tontu na leen ñii de ñooy ba bañoon na dem ca xare ba ñoo fi xeew seen bopp ñu ne kenn mun leen fee jëlee lu du yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba yonent bi ñëwee nag mu laaj leen ñu daal di wax nag ñu ne yow rek yaayee ci ñun ba ba eh, ñi des sa te daat tàndar mooy ba aay bi wàcc fekk ñoom lu ñu bëggoon mooy ñu ñu xewoon seen bopp dañoo bëggoon yonent bi nangul leen dara seen alal su ko defee nag yi ñaane leen yàlla yàlla jéggal leen ar aay bi daal di wàcc kus jàppal min amwaalihim ci seeni alal sadaqatan mu dig sarax tutahhirhum dana mu def na laabal leen wa tuzakkihim te def na sellal leen bihaa ci sarax soosu rek seen i bàkkaar jëlal seen i alal mu nangul leen tuub ñu set teñ sell rek wa ñaanal alayhim ci ñoom inna salaataka inna salawaatika naka sa ñaan sa nu yërmande lahum ñeel leen de julli moom ku dul borom bi rek keneen kuñ ko def rek ñaanal la même xataa boo déggee julli si ñaanal la allahumma salli ala sayyidina ñaan lay firi waaye julli nag moom yàlla rek moom moom rukkoo ak sujjóot moom yàlla rek moom la moom la ñeel de moo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam alquran na ko borom bi ne ko xuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim ñaanal leen inna na sakanun lahum sa sa ñaan yi de yërmaande la ñeexal leen de te itam dal la dafay dalal seen xel mi nangu ne yàlla nangu na leen tuub wallaahu yàlla sama yoon aji xam la mu seeni seeni jëf yëpp te aj dégg la mu seeni eh, jëf yëpp lu ngeen di def xam na dégg na ko xalimun aji xam la mu seeni jëf de lu ngeen wax dégg na ko te itam lu ngeen jëf itam dégg na ko de yàllaa leen gën a xam seen bopp sax yonentu daal di jël la ñetti xaaj seen alal mu daal di ci saraxe ngir ñaanal leen yàlla de te itam ngir itam seen seen seen jëmm ji mën a laab te itam laabal leen ci bàkkaar de loolu moo tax nag am na ñu ne euh, ñaanal leen yàlla parce que am na ñu ci dee ña ca dee woon nag mu ne loolu mooy ña comme julleeg néew rek attey julleeg néew julleeg néew moom ñaan la rek ndax nettali nag na ñu ne bi aadama génne àddina malaaka yi dañoo wàcc ñëw sang ko defar ko sàppe itam digal si sa ñi mu jiite pour ñu jullee ko léegi nag ña bokkoon ca jullee nag moom fanweeri fa euh, ni ñu koy teeti fanweeri nit ak fa woon ca biir bañ bañ dencee nag ba pare malaaka yi mu ne lii mooy seen sunna ku génn ci àddina ci yéen na ko sang defar ko ba mu baax su ko defee ngeen jullee ko te itam euh, euh, bëgg nañ ci ñetti sàppe ñetti sàppe nag bu buñ mënee am fanweeri nit moo gën su fekkee nag jéggi nañ loolu itam 40 itam moo gën a gënati moo gën a baaxati moo tax euh, julleeg néew ci noonu lañ ko saxalee ba ci yoon jàllaay tey de yonentu ne na sallallahu alayhi wa mu ne képp ku dee ci jullit ni teñ taxawal taxawal ko ngir jullee ko ñetti sàpp ci jullit ni yàlla dina ko may mba ak ràmmu ak rammu itam ña fekkee jullee ma de maanaam moom aji dem ji yàlla dina ko baal yemu ca woon rob itam yàlla dina leen baal de yonentu nee na itam mu ne képp ku dee ci jullit ni teñ jullee ko ñeen fukki nit ci julli ni ñëw ñëpp taxaw ñëw jullee ko ñeent fukki nit mu ne ñoom ñëpp am nañ ramm ak rammu de yàlla dina danañ am ramm ak yàlla rek mu ne loolu moo tax mbooloo mi lu mu néew néew ci julleek néew dañ ciy bëgg ñeent fukki nit su ko defee nag ñeent fukki nit yooyu suñ ko xaajee ñetti sàppe ñetti sàppe su boobaa dina gën a baax de loolu ci loolu su lañ ko bëgg su boobaa ñoom ñëpp danañ danañ am ram ak yàlla jéggal ak yàlla te itam loolu loolu yëpp li li leen koy may mooy jéego guñ jéego woo rek ñëw fekkee si dox doo ñëw fekkee si julleeg néew gi de kon nag wasalli julli ñaanalal alayhim ci ñoom inna salawaataka naka ñaan sa sakkanu yërmaane lahum ñeel leen wallaahu yàlla samiun aji dégg la mu leen eh, seeni wax xalimun aji xam la mu seeni jëf de allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallam